Mamadou Diop euh, Thioune maa ngi lay nuyu maa Mamadou Diop euh, Thioune nga nekk coordonnateur national bu comité tripartite euh, du dialogue social de la pêche et de l'aquaculture gannaaw mesure yi nga xam ni euh, njiitu réew mi Diomaye jël na ko ngir wàllum foncier bi ñu réguler ko gis nañ ni dafa daal di jublu ci wàllum napp gi ba tax na nag ministère des pêches des infrastructures maritimes et portuaires daal di fësal ab liste publique boo xamante ni mooy navire yi ñu permettre actuellement ñu mën a napp ci géej gi fii fii ci Sénégal euh, yow naka nga gisee mesure yooyu nga xam ne euh, nouvelle autorité yi euh, jël nañ ko ngir réguler napp gi sa analyse. kontaan nañ ci lool kontaan nañ ci. gërëm leen di leen ci sant. di wax na it ñoom seen wareef def nañ ko parce que loolu moom la ñoo xaar ci ñoom du mel ni que ngoon ñoom mën nañ setal seen bopp liñ ci fekk ngoon joxañ gë leen xaw a parce que ñoom tàmbalee ko ñu defuñu waaye bu ñuy jëlee li fi nekk natt ko génn ko wane ko te ñu ko jiitu woon nekkoon laaj di xawuñu ko yaakaar naa ne jéego boo dee wane ne ñoom kat bëgg nañ leeral seen baatu jubal jubbanti ak euh, li nga xam ne moo nekk ci lu jub beneen bi aussi mooy euh, bokk na ci tey bagage yi wàllu yi nga xam ne ci ay càmbat la woon lu jëm ci napp gi napp gi nag dafa global te napp gu mag ak napp gu ndaw gi yëpp dañu am problème waaye li ko euh, gën a suuxat mooy li ñu daan wax ay accord Sénégal am na plateforme tonnière Sénégal am na quota thon Sénégal am na deux cent mille mille marins ci zone bi nga xam ne moo ko moom war cee napp te lépp lu ci ëpp mën na ko def accord waaye lu ci ëpp mën na ko def accord mais tey boo seetee tey accords yooyu li mu ñuy indi bu ñu ko seetee bàyyi ko faa gën defar suñu bopp defar waar parce que lim bi ñu génnal ñun ci bato yi nekk na lim boo xam ne uute di ko wax ni ko ngoon ñoom lam lam fa fekk ko wane lañ doon wax ci géej di ko jooy moo ëpp loo xam ne war nañ ko seetaan ngoon mu mel ni ko bu wanee bi sot rek bu mu ci yem de nañ dem ca seeti lay dëgg nag ci géej gi nag lii lan parce que li ñu génnal tur yi ñu indi ak euh, ni ñu ñëwee mën nañ koo wax ak nañ leen soppaleen ay tur waaye ay chinois ngi fi ay structure bi ñëpp ci biir yoo xam ne ñu leen fi indi awalate ne ñuy renouveler te ñu bind ci def xamuñu ñaata doon waaye loolu loolu yëpp xëy na du am solo li am solo mooy naka lañ koy fexe mu nekk alal moomeel gox yi soo suñu moomeel mu def suñu loxo yi moomeel yokk suñu koom si ni ñu ko bëggee te ñu wéeru ci di ca dundee di ca lekk di ca naan mu jëriñ si métti moo xam ne kenn du am tawat te dañ ci jot kon gàllankoor bi ñoo koy teggal suñu bopp ànd ci li nga xam mooy ku nekk jàpp parce que bu jaaree ci information ni mu ko defee jaar ci communication ni mu ko defee ñun du ñu bàyyi di seetaan dañu leen di fekk ci jàpp ci parce que ñoom ñu xamee ne ministère technique mel ni napp gi ak mbay mi ak càmm gi foog acteur ba taxaw ñuy wax bokk ci biir toogaay ba ak lay dogal. avant nguur gi di jël euh, mesures yi est-ce que consulté nañ les acteurs de la pêche est que jéem nañoo waxtaan ak yéen euh, ci mbir mi waaw wala déet. waaw parce que day ji euh, ngërëm li la ñu amul woon ci jamono am nañ ko tey mooy wax ñu ma sa dënk lépp lu ñu ma sa bind lépp lu ñu ma sa càmbar teg ko kenn uyu ci woon moom bu ñëwee ubbi ko xool ba pare nag ndaw si bokk ci ñun di ci kër gi di suñu jigéen liggéey ak ñun xam li ci kër gi xam jàmbat gi pour mu mën a dimbali ko ah dimbali boppam dimbali ñu si boppam ci biiram ñu dimbali ko ci biti waaye mu dimbali ñu ci biti ñu dimbali suñu bopp suñu biir de parce loolu rek doy na ne yóbboo am na parce que ñun bokk lu ñuy wax mais daanaka jaratul ñuy dellu gannaaw parce que ñoom fekk na ci loo xam ne mosu ñu am fu ñu ko ubbil moo tax bu ko ubbilee tàmbale ko nii fu ñuy jeexantale mooy ànd ànd goro gor ci biir mu leer te ñu xam it kan mooy kan ak kan mooy kan ku toogal kan ak foo bokk ak loo doon ñu jëm ci des ñu bàyyi nag kenn ku nekk ëmb sa wàll jël suñuy jooy dem fekkee jooy ñëw duñ ci jooyloo. Hmm. Euh, bu weesoo loolu lan ngay suggérer euh, autorités yi nga xam ni ñoo fi nekk pour mën a. suqali mbéy mi na fi mu nekk nii pêche bi antalul ñëpp. waaw waaye borom métier yi tool yi soudeur sonorier nañu observatoire ci littoral maritime yi nga xam ne am na pétrole ak gaz. parce que pétrole bi kenn du ko yeesal te day jeex waaye jën bi du yee du du du jeex beneen bi aussi mooy bu amee main d'œuvre qualifiée boobu dina tax ñi wàññeeku parce que ñu bari ñëpp nañ ci pes waaye bokkuñu pes mooy ñu saf nii ba di ko wax ci migration bi da ngay na nappkat bi non les gars ci biir àll bay jële ay nit yéen neex parce di ko fa mujj a bàyyi ñu bëgg nag léegi ñu décentraliser loolu jël politique de décentralisation bi nga xam ne mooy décentraliser la lutte contre la migration yóbbu ko ci collectivité territoriales yi ñu bokk ci borom baat yeeg borom dombe yeeg aade borom aade yeeg cosaan yëpp ak politique yi bokk ci waxtaan yi bokk ci ñu koy bokk ci ñu koy ñuy takk su ko am ay solution ci li xam ne géej gi la moo ko war ci géej gi la waroo wala jóge ci géej gi wala géej gi lañ ko teg beneen bi si mooy mën ñu am Sénégal quarante six département te amuñu ay ay frigo amuñu ay centre de stockage amuñu centre de conservation donc loolu aussi nañ ko waxtaan parce que liy génn ci géej gi dañ ko ni denc ba tax na usines yi ñu am nañ ko ubbi ci temps bi quota bi ñu daan jox ci union européenne ay accord ñu bàyyi bi dugal ko ci ubbee usine li nga xam ne tey jii mooy privé national bi secteur privé ñu jàppale leen ñu ubbiwaat loxo bu baax a baax ci napp gi yokkaat industrie yi yokkaat waaye yokkaat koom-koom ak suñu consommation. ñu bëri dañuy wax ni li waral phénomène émigration irrégulière bi fi ñu toll nii ëpp euh, nguur gi doole moom mooy euh, nappkat yi dañoo gisatul dara ci géej gi ñu bëri nag ñi nga xam ni ñu ngi defar gaal yi di dem Espagne wala bitim réew jafe yi am si napp gi moo ko waral waral est-ce que da ngay partager idée boobu Mamadou Diop. non romb nañ foofu. parce que depuis 2006 ñoo doon wax ñun ba changé politique yi doonte am ci lu neex waaye jamono yi toll nit ñi dem ci àll ba def ne ay passeurs ki trafiquant la nañ ci ci collectivité territoriale te yóbbuñu ci autorité locale yóbbuñu ci autorité coutumière yi euh, leader d'opinion yi quartier euh, ville ak commune yi rawatina ñi nekk ci littoral bi nga xam ne ay collectivité territoriale yu war Euh, état bëggee nank ci kaw moom kott du sotti que mos état financier laaj mu de wàcc ko ci suuf wasaare ko bu mu nekk nag euh, de manière euh, horizontale ñu mën koy yëgal de manière verticale loolu fekkee def nañ ko ci jàpp ma jàpp ànd bu sel mu nekk loo xam ne tey jii lépp lu mel ni secteur yi nga xamee daanaka mooy yokk koom gi ñëpp dañ caa boole acteur ba muy consommateur ba muy bénéficiaire ba base ba ak kii dogal ak ñi nga xam ne autorité yi dana mën nekk loo xam ne ay résultats yu ci am mais est aussi bu ñu réguler pêche bi est que mën na xeex wala wàññi affaire émigration irrégulière. dana ca doon lu bari. Mhm. parce que naa la ñu euh, xale yi jëkkoon dem ci napp gi wéer gi nag bi ba ñu fekkee fay dañu bëgg ñibbisi parce que dëkk yi boo fay dem tey boo la météo si dañu lay jëlee wala kër gi ñu amatoo doo sotti. da nga leen fekk si tali fekk leen ci gaar yi ñuy fanaan te ñi leen yóbbu tey jii leen bañ ñoo bëggatu donc euh, wax ci ko nag nga bàyyi li mu moom dem nii da nga yaakaar ne napp gi ko wéer ba ñu ko wéere noonu tey jii def ñu nga ca dëkk di leen jëngale sori bi ko digal ñëpp di dee bokk ci napp ñu gis ni aussi fi ñu toll ni consommateurs yi dañuy wax ni euh, produit halieutique yi dafa cher trop jën ak ñoom seen li nga xam ne en tout cas euh, mi ngi jóge si nappkat yi lan mooy expliquer euh, cherté boo phénomène yi feeñ yëpp ba effondrement bi am mu leen jën bi daanu na wadd na jëm suuf la nga daan jàpp mënatoo ko jàpp kuy nappi dangay ngay nappi dem di jàpp lu néew di jaay lu cher. dépenser cher mais tey jii bu fekkee ne tey jii naax yëpp ñëwaat nañ waax yëpp fees jàpp lu bari du tur lu bari ñi ko conserver ah nga am loo jënd ndawal waaye nag mënoo dépassé jën euh, lu bare bari jàpp jën si lu seer ñëw di ko jaay ci lu dul génne ba bañ a dem génne gën. bu weesoo problème mu euh, pêche illégale bi maanaam napp gi nga xam ne jaarul yoon euh, yan jafe-jafe la nappkat yi di jànkonteel te ngeen bëggoon président dégg ko. gouvernement bi daal nañu ko leeral dalal ñu génocide te ñoo xam ne nag fii suñu interprofession. du ñaar du ñett nu ñu gën a loi d'orientation moo ñu yóbbu ñu am interprofession de pêche artisanale bu tudd CONIPAS beneen bi nous avons adhéré à formaliser le secteur dem ci OIT nekk ci comité dialogue social bi donc ñun dañu nekk tey ci jubbanteku jubal comme ñoom ni ñu ko waxee waaye ñu yiir ñu ci kaaraange goo xam ne dañuy légal te légitime donc bëggatuñu ni ku nekk ŋàbb rek ne yaa ñu yor yóbbu ñu fu la neex ute ñu lu la neex li ñu bëgg yooyu dakk moo tax ñu ne nañ am diagnostic des organisations reconnaître suñu euh, interprofession interlocuteur muy le CONIPAS beneen bi ci des it mooy ñu jël ci wax ci yelleef daanaka tey jii comité bi am ni nguur gi tey ministère bi toog ni tey fukki at ci ginnaaw ba tey mosu ko uyu ko sax ci li mu koy oo umpale nañu tànn biir tànn bu leen neex bi dafa war a deñ mu nekk dafa koy transparence est-ce que am ngeen euh, yaakaar ci nguur gu bees gi par rapport ak seen i jafe-jafe ño ni ñu leen yaakaaree ñun nañu yaakaar suñu bopp yaakaar leen waaye ànd bay mooy jàppal ma jàpp duñ leen ko bàyyee mënuñu ko defar sans ñun que duñ ko defar sans ñoom donc lëkkaloo foog mu am appel bi ngay lancé président euh, Diomaye si si yaatal gouvernance inclusive et participative mhm. sobre transparent mais moom nga koy lancé ci wàllu. waaw maa ko wax loolu man napp di ko wax nag ñu ngi ci taalal loxo. que mm. nañ ci wuyu nag ba gën ci mu bokk nag ci instance transparence yi. mais aussi est ce que yéen euh, si xeex gi ngeen di xeex wàllu napp gu jaaru yoon est ce que d' accord ngeen état bi signé euh, ah, ah, signé ay licence de pêche wala da ngeen si d' accordul benn yoon. am na yu ngeen d' accord état bi mu signé ay licence pour di licence. Ah? état bi nag xam ñi muy signé ñan la société mixte yi nañ leen leeral. société écran yi nañ leen leeral nañ def état de lieu bi te bloqué les licences. def état des lieux pêcher pour la consommation sénégalaise et non pas pour pêcher pour l'euro kon contrôler totalement euh, li nga xam ne mooy licence de pêche. nous sommes contre la délivrance des licences parce que ñun amuñu licence yi pêche yi ñu naan jox si jën wi de. Hmm. yeneen espèces lañ ko daan joxee te mën nañ ko jëlaat léegi si heure nañ jël jox ko li muy laaj. Hmm. ak li ñu bëggee ñu ànd ci ñu wane seen bopp ñu defaraat napp gi jox ko Sénégalais ñu consommé nationale bu comité tripartite du dialogue social de la pêche et de l'aquaculture jërëjëf culture